voilà mbokk yi asalaamaaleykum dellusiwaat nañu ci suñu émission bi nga xam ne moo di jano bi tey rek ñu toog ak Abdoulaye Wilane bi yore kàddu parti socialiste barki démb ngeen euh, wëlbatiku fal ki nga xam ne moom moo di Amadou Ba ba ngeen ca noppee itam waa AFP def nañ loolu maanaam benn Bokk Yaakaar ba bi ci mujj mooy bii nga xam ne moo di APR bi nga xam ne ñoom ñoo jiitee réew mi ci jamono yi nga xam ne ci la nga ñu toll loolu mooy prétexte bi tax ñu dalal la ñu ngi lay nuyu. asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu Haj Malick mbaa woppoo yee non loolu day daana ko ah, ah, yàlla ko yàlla yërëm oh, Tanor ah, maa ngi lay nuyu di nuyu mbokk Sénégal ak sénégalaises ak yi nga xam ne ñu ngi ci biir réew mi mhm. Mhm. wala bitim réew ak fu ci waay mënti nekk mhm. maa ngi lay nuyu di la souhaiter joyeux Noël ak bonne heureuse année voilà Ablaye li nga xam ne dégg nga ko wala déggloo ko ba barki démb ci mujj dañu ci jaar directement parce que ñoom nëbbuwuñu dañ ko wax dama lay jox tur yi wax la te ñoom ci parti socialiste ci la ñu réclamé ne ci lañ bokk mooy waa IRAS ñoom euh, kenn koo xam ne kii moo di Balde bi nga xam ñun ñëpp xam ko dugg na ci journal bi ne waa parti socialiste loolu ñuy def wut nañ seen i nit dajaloo fu nekk ñu jële fa mobiliser ok mais ci biir parti bi am na ñoo xam ni li ñuy def ànduñu ci tey ànduñu ci ëllëg quitte à ce sax ñoom ci seen bopp ñu ngi ci biir parti bi nee nañ mais ñu ngi jàppale Khalifa Sall ñu ngi jàppale ñeneen ban lecture politique nga ci am alhamdulillahi rabbi alamina wasalaatu wasalaam ala xayri xalqillah sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam maa ngi nuyu waat waa Sénégal di sant yàlla bu baax ci bi nga xamee ne Parti socialiste def na congrès bu am solo bu am mbooloo bu yéeme bu rëtloo ñu bëree bëri bëri ci réew mi lu yëngul nag lu ne la ko yëngalu këpp doole maa ngi ndokkeel secrétaire général Aminata Mbengue Ndiaye ak membre secrétaire exécutif waaye surtout waa bureau politique bi nga xam ne ñoo woote congrès bi parce que suñu mbir noonu lay doxee di gërëm bu baax délégué yi nga xam ne ñoo ñëwoon ci congrès bi ndokkeel leen ma masawu leen waaye itam di sargal militant ak militant yi nga xam ne ak soppe yi nga xam ne ñëw nañ ci congrès bi ah du ñëpp mën def congrès congrès moom ñoo ko moom congrès moom c'est d'essence socialiste kon suñ ko defee bu pare li wolof njaay di wax naan ku sëf mbaam jog ba mu diis nga laab ko mbaa nga yex ban ko toog ci kawam di dóor mu lay yóbbu wala ngay wii sa yoon bu coowee moo xam ca gannaaw la wala ca kanam nga bakku ca faw nga mun ko muñ li ma bëgg a wax mooy parti socialiste ku gis mbooloo ma fa teew ak tranche d'âge nit ñi muy ay ndaw ay cadre ay kàngam ñi place congrès bi sous le signe de la du renouveau et de la jeunesse nga xool région yëpp ñi ñu yebal ña fa jël kàddu maa ca mag tamaan juróom fukki at juróom-benn ñi fa jël kàddu à part président. tu n'as pas encore répondu à ma question. tu vous êtes en train de parler de parti socialiste. waaw tu que a des dissidents il y a des dissidents l'information est que parti non là c'est une information dépassée. non loolu li nga wax noonu du information épiphénomène la. pourquoi dafa am congrès parti socialiste ñu am du am du am am. mu am gannaaw boo xamee ne. mais il est facile de mobiliser c'est très mu am gannaaw boo xamee ne coordination yi. oui yi région yi. Mhm. kuréel yi bokk ci parti bi muy organisation des travailleurs socialistes vision cadre yi étudiants ak élèves yi jeunesse socialiste muy jigéen ñi jeunesse féminine ak ñëpp mouvement national des femmes def kenn ku ne ñëw. wax parti bi dans son ensemble. dans son mais mais pourquoi mais loo wax pourquoi loo wax ci problème parti socialiste. léegi nag coow li ci pindub teen bi gaa ñi amul baag la. mooy ñan. mais ñi nga xam ne am na ku leen ku leen maanaam di yëngal comme ku yor sa xuus ñaat di leen loxloo. ah bon waaw parce que congrès bi mu amee. dafa am ay événement yu nit doon créé pour jéem foogoon ne du am ndam foogoon ne dina am kët kët mbaa mu am coow wala mu wuti gis-gis moo xam dañu layee téere bu ñu bind wala leneen ba loolu sottee ña leen doon gëmloo ne am na ci biir parti bi ñu àndul ci li ñuy def. ñooña faw ñu wax loolu la tubaab bi wax l'arôme de son rot ku giix ku ne ñam wa nga mujj lekk lam saf moom ngay giix soo añee kër jàmbur baa nga reeree fa nag dox tuut daal di giix la nga giix loola lay saf li ma bëgg a wax mooy euh, euh, ñoo ñuy wax ñëpp am nañ droit wax la ñuy wax am nañ droit doxale na ñuy doxalee waaye mais c'est des dissidents il faut il faut le reconnaître c'est des dissidents su ma ko seetee sans bopp bu wax jotee wax sakalaat danaa wax li ma gisee ak ni ma bëggee waaye su ñëpp waxee ba teg parti bi ànd ci lenn man bu ma ca àndoon at bu ma ca àndul yëpp maa koy gën a défendre parce que la force des organisations c'est la discipline. pourtant les pour pourtant pour les Sénégal ils disent que parti socialiste existe tout dañuy dajaloo nii rek. mais ah, c'est-à-dire que bon loolu yomb na man mi mën naa wut sama xaalis wut ay Ndiaga Ndiaye ñëw teg. mais parti bi parti bi ñu bëri xale yu bëri xamatuñ ko. parce que waaye gis nga gis nga. Euh, da ngeen a bootu rek. gis nga nit ak xam nga nit mën naa xool lu bëggul xool mën naa dégg lu mu dégg mën naa juum sax wax lu mu bëggut a waaye ñi dëkk jëmmam ak soxlaam ak farataam bu jëlee ko dëkk ak bërëb ab bërëb ñëw taxaw te toog fa ba ngoon jot déplacé wul kooku la muy dox ñor na ko itteel na ko rien que région Kaffrine te loola su ma amoon moyen possibilité def lu kopp dinaa ko def mille deux cent quatre vingt ñoo fa départ ñëw ci. il est facile de mobiliser ah. mu ne il est facile de mobiliser. waaw mais non ñun ñun fi ñu toll. parce que loolu du baromètre quoi léegi xam nga mobilisation nekkatul baromètre. li nga wax d' accord naa ci. nekkatul baromètre pour wax poids parti bi en ce moment. li nga wax d' accord naa ci parce que damay wax toujours ne. Mhm. toutes les foules se ressemblent. oui waaye fii parti socialiste toll. ak ni lim bi ñu perte nguur gi nëgg nii. Mhm. suñu parti dafa am parti dafa am spectre bu yaatoo yaatu ci biir réew mi ñi am ay réseau dormant am également ñoo xam ne am nañ temps wu am nañ occasion wu am nañ chance su comparer PS culture am rapport am ak pouvoir rapport am ak militant rapport am ak citoyenneté rapport am ak état de droit ba tax na tey xale yépp ñu ngi commencé ak. mais d' accord mais d' xam nga xam nga yow mais Wilane yaa ngi wax ci par très bien di wax dëgëraayam parti bi nangam ak nangam même yéen ci coalition bi ngeen nekk nii à part boo ci génnee Aminata Mbengue Ndiaye yow mii peut peut être euh, Thiam le ministre euh, Thiam bon ndooy moom sax ay biram dañ koy kii nii rek xaw na de à ah, part ñi ci des ñëpp ana gaa yi ci des. ak ni parti bi toll nga xam ne parti national njëkk a jiite réew mi 40 ans 4 personnes ba noppi sax bërki démb li ci gër et loolu da nga ci waxaan ah, leeral ko parce que gars yi nee nañ mois de décembre bi bi ñuy seetlu ko mémoire Senghor parti socialiste bu Senghor bu Senghor judduwaatoon da leen di mere parce que taxawu leen politiquement quoi da ngeen a taxaw ci booloo waaw da nga da yu bëri dama bëgg oui oui ba ma ko may benn bot benn dañ ci doon rapidement a wax mooy oui rahmatullahi alayhi doon na wax naan mhm. euh, li gën a jafe du nekk responsable li gën a jafe mooy nekk militant ànd ak say nawle xam des fois lu ëpp lañ xam mën des fois lu ëpp lañ mën yelloo ko waaye doyloo leen wóolu leen ñun ñi nga xam ne ñooy responsable bi amuñu solo li am solo mooy xalaat ak gis-gisu parti bi mooy idée yi bi projet de société bi programme bi référence idéologique bi li am solo mooy la source de la légitimité mooy militants yi kon su militants yi ñëwee faaw ñu sargal leen faaw ñu ndokkeel leen benn ñaareel ba li nga wax ne am na ñu wax ne bi ñuy màggal dañuy fàttaliku Senghor te bi mooy ñaar fukkee du yoon ak ñaar ñii ñi ne dañoo. war mémoire Senghor. parce que parce que parti bi léegi depuis depuis kii da ngeen di bootu rek. waaw pesé wu leen seen bopp. waaw xamu leen nu ngeen toll. du ngeen bokk ci élection. xam xam xam nga ñooñu ñàkk xam li mu waral dafa bëri. salaamaaleykum ñoo dégg ñu wax loolu. dañoo xamul kan mooy parti socialiste kan mooy Senghor. président Senghor yàlla na yàlla yeesal njëggal ci moom. pour service rendu à nation et à tous les sénégalais toutes confessions religieuses confondues te yaakaar na ne yàqalul diine islam président Senghor dafa ñëw tàbbi ci politique gannaaw bu ko ci Lamine Gueye dugalee. je suis d'accord. ba ñu wutee gis-gis mu bind lettre Guy Mollet 48 génn ci parti bi. absolument mais bi mu ñëwee dem ni Sénégal indépendance. Mhm. cadre fédération du Mali bi fédération du Mali tojee. Mhm. te di ko tojut géej gi dama doon dara tuurul mu ànd ak Mamadou Dia ak seeni morom yore réew mi. Mhm. jamonoom ba ni mu génn ci nguur gi euh, gestion sobre et vertueuse ci ñoom la fekk baax Senghor tey ci àdduna fi mu toll muy Sénégal parti boo jël. on loolu lo vous parlez de la personnalité de Senghor. waaw parce que non Senghor mais ma lay tontu. parce que ñi fi nekk tax ñuy wax. mais pas pas le passé. yow sa niveau d'intelligence ak sa capacité dégg li may wax bala xam fi ma jëm. bokkul ak sénégalais ak sénégalais ñuy déglu te boo laajee ñoom ñooy déglu sa laaj ñooñu dañuy xaar li nga laaj ban tontu laa ci jox ngir yàlla. Euh, rapidement waaw man ne la donc Senghor ñun ñi téye parti bi li nga xam ne Senghor moom la daan doxalee mu nekkutoon pouvoiriste nguur taxutoon ko jox la preuve en mille bi ñu ñàkkee nguur gi mën naa ñëw ci Abdou Diouf ak ñu mu donnoo Senghor ak ñu mu ko taxawoo. ci francophonie mais dama ne leen tonor bi ñu nekkee nguur gi ñun ñii àndoon na moom ñun ñoo théoriser pratiquer l'opposition républicaine. yaa ngi dégg te Senghor bi mu yoree parti bi danaan am fusion obsession am yeneen parti yu daan bàyyi parti ñëw ànd moom lëngoo liggéey di suu itam mu dialogue politique toutes les idées toute la trame projet de sociétal de la de l'idéologie et de la doctrine yi ñu dem dund ak Senghor tey la gën a du am solo politique publique yi nga xam ne ni mooy moom moom la PSE nànk bi ñu ànd ak Macky Sall parce que yoonu yokk ca la Macky Sall njëkkoon wax ñu ñëw léegi PSE politique publique yi ñuy mettre en œuvre ci Sénégal ba ñëpp naan Macky Sall jaanga jaaraama di ko gërëm lépp dafa bu fekkente ni amul d'essence socialiste ou d'extraction socialiste dafa am une fort connotation socialiste nous sommes parfaitement à l'aise non seulement ci euh, perspective projet sociétal ou politique publique yi mais nous sommes très à l'aise ci ni ñu ko appliqué loo ci mën di jël nag rapport ak la religion maanaam ñun li ñuy def ci réew mi dañ koy def pour Sénégal parce que ñun ñoo jàngal Sénégalais ne mën ngaa yóbbu Sénégal indépendance tike du toj géej du dobar de guerre du am. pourquoi pourquoi pourquoi ngeen bàyyi définitivement dem ci élection. vous avez tourné le dos aux élections. non non non bàyyi ngeen bàyyi ngeen élection. waaw fàttalikul ma ne. parce que bi ngeen daanoo dem na élection. en 2007 ma ne Senghor ak Abdou Diouf. oui dañ daan ak ay parti yu bàyyi seen parti. oui bàyyi seen ambition pour nekk candidat ànd ak kon su àdduna mais mais non bi mu ko defee Ablaye Wade attention Abdou Diouf Ablaye Wade dafa dugg ci gouvernement bi élection ci duggalaale loolu mu leer ci réew mi oui am na ay parti yoo xam ne mosu ñu ànd ak sax Abdou Diouf ah, wala PS wala dañoo génnoon ci PS ànd nañ ñoom jàppale ko ay coalition oui ba même la amoon Abdoulaye coalition oui boobu ba nëgg ñun itam coalition nañu àndal coalition nag boo koy def am ay parti yu bàyyi seen candidature topp la ëllëg war ngaa mën a d'accord ne tey yow ëllëg waroon nga ànd ak nit topp ci gannaawam. d'accord l'essentiel est que booy ànd ak moom. politique publique yi mu nekk accord politique et programmatique. nga war ko endosser assumer ko sur la base de la solidarité politique et gouvernementale sa xalaat sa gis-gis na ca feeñ. mu saf ci sàpp. non mais loolu mooy li nga xam ne moom ñun moom la ñuy dund. oui te dañu jàpp ne Amadou Ba mii nga xam ne moom la ñu tabb comme candidat jàpp naa ne su fekkoon sax du Benno Bokk Yaakaar su fekkoon sax du. ànd bi ñu ànd ak Macky Sall te ñun sos benn boo ko yaakaar dundal ko ba heure bi nii moom mënoon naa xëy nekk candidat au PS parce que fàttalikul ne nekkoon na PS. je suis d'accord comme nit ñi nga xam ne tey ñoo ñu carte. <coughs> ñoo génnee suñu parti yi sos ay carte sos sos sos ay kuréel di toppee ak àndee foo xam ne dañ leen di xarab ak bunt xatal ñun Amadou Ba bokkoon na suñu parti ba nekk euh, conseil municipal na PS ba nekk fi conseil municipal ville de Dakar mais comme Khalifa Sall c'est pas c'est pas un problème loolu bokkoon na suñu parti ndax wuy juram c'est comme Barth également c'est pas grave ma ne wuy juram mhm. nekkoon na responsable parti socialiste comme ni mu nekkoon responsable je suis d'accord Tijane oui ñun kon dañu jàpp ne bu fekkente ni un peuple un but une fois la wax bu fekkente dañuy wax dañuy wax ah, xeex gagné bokk yor réew mi liggéeyal Sénégal moo ñu itteel Amadou Ba mi ñu tànn jaar-jaaram fi la jàngee fi la juddoo ci jamonoy PS. d'accord jàngee fii am fi liggéey am fi ay xarit ak. ñëpp dañoo yaakaaroon ne xelal ko. d'accord mais Wilane bul fàtte ne ñëpp yaakaaroon ne bi président Macky Sall ne bana par social dañu wane seen am na ñu ko ngeen lank toppaat ci. am na ñu ko wax am na ñu ko bëggoon man mii bokkoon naa ci ñu bëggoon loolu. bëgg na dem wuti. non mais mais yow fii ñaata laaj ñu toog. Ah, am na ah, ambition boobu absolument du dëgg. donc waaye bëgg a dem taxu la dem mën a demee daxa dem. lu leen fi téye day toll foo xam ne nii dangay xam yan enjeu moom moo moom moo fukk moo moo moo moo moo moo dëxañu ci élection yii ñu mën muy 2024. page sociale bu attention Sénégal ci Afrique Sénégal ci Afrique de l'Ouest mooy rare pays boo xam ne nii mosul am coup d'état mosul am interruption du processus démocratique ñi bëgg jàmm ji. nation bi paix yaa ngi dégg. ak man koo loolu PS da ko mën a yàq loolu. loolu PS mënu ko defar mënu ko yàq loolu loolu. dama ne dama ne am ndaa toj ndaa baaxul. boo bëgg a développer réew. da ngay am ay action politique ak ay programme yoo xam ne da koy def sur le temps d'une d'une génération man maanaam vingt vingt cinq ans ñun dañu ànd ak Macky teg Sénégal ci yoonu yokkute def fi loo xam dañu bëgg mu àgg ba deux mille trente cinq ci diggante boobu kenn ku ne ci ñun. am na sañ-sañu ni mu ko war a bëggee kenn war koo bëggee am nga sañ-sañu ne bëgg nga waaye bu ñu toogee seet parti yi bokk ci benn yëpp amu ci kenn ku wuuteeg tan wuuteeg xalaat ak tànn tànn bi ñu tànn ci Amadou Ba ñii jëpp pendant ce temps pendant ce am na ñu nekk candidat bokkoon parti socialiste looloo leen génne woon ci parti bi muy Khalifa Sall. du moom rek. ah waaw mais justement mais raison de plus raison de plus mën nga lim tudd tudd Jean Baptiste tudd Mor Faye. waaye dama ne ñooñu mhm. nañ sañ-sañu l'ambition et le moteur de la vie. l'ambition c'est le moteur de l'histoire et man du ma condamné nit. teg ko ci délit d'ambition. waaye dama la ne la ñoom ñëpp boo leen méngaleeg Amadou Ba dëgg rek ndax yàlla. moo gën a jëkk moo gën a mag moo gën a. way parce que Amadou Ba yow parce que Amadou Ba loolu du dañ koo xam démb barki démb. te dama lay mën a kenn ku ne si ñoom bëggoon nga am investiture bi Macky Sall bi bi Amadou am ci ñun amoo ko yaa ngi dégg gis nga mbir parti ak Sénégal nu ñuy fi mu toll li wolof di wax naan am ko te xamoo ko xam ko te ñàkk ko moo ko gën. fi fan la Sénégal toll. ñoom ñëpp ñu nga xam ne dañoo nekk ci dañu nekk ci jiital seen lutt. oui yaa ngi dégg. oui te te mënuñu. te xam ne bëgg a dem taxul dem. mënut a dem ñoo ñoo bëgg a waxal. Abdou Diouf ñoo ñoo bëgg a waxal déglu ma la ma ñoo bëgg a dem te mën dem. la ñun ñetti njiit a amagum. mooy ñan. président Senghor. oui yal na ko yàlla yërëm. way président Abdou Diouf yal fi yàgg te wér. ma dem ak président Tanor Dieng yàlla na yàlla yeesal njëggal la yërmande ci moom yugal ko barzak rasulullaah ñoom ñëpp kenn ku ci ne Tanor bu doon dund tey nit mbir mi taxawee dana jàppale euh, euh, euh, comment s'appelle Amadou Ba Abdou Diouf lu tax ñi naan ñoom PS la ñoo ak ñoom nga xam ne ñoo am jaar-jaar yenn yi kenn du ñoom demul góor Abdou Diouf recevoir la Abdou Diouf la bàyyi politique déet lu tax comme mu recevoir nit non demul Abdou Diouf Abdou Diouf Abdou Diouf ne parle plus de ça Abdou Diouf parparloo waaye Abdou am na fulla bu toll ni ma su gisee lu baax mu joxoñ ko baa mu ne ko jàkk baa mu teg ca loxo taal bu yàlla taal nag sànni sigma te bañ koy seen coalition bii ngeen def ak benn bokk yaar yoo yaakaar yoonu Abdou Diouf nekku ci waxu ci ah, dugg ci de toutes les façons de toutes non de toutes les façons dégguñu ko mu wax ci waxu ci nekku ci ku xam Amadou Ba démb la ku xam Amadou Ba tey la ku am gis-gis ak yéene bu rafet ci tànn bi ñu ko tànn ak li ñu bëgg ci moom moom la Abdou Diouf def loolu mën naa ko wax man waaw mais d'accord mais Amadou Ba bi a classique mooy yéen ak waa AFP bokk ci Benno Bokk Yaakaar Bokk Yaakaar am ñu bokkoon ci APR bàyyi ñu mel d'accord mais cela veut dire parti politique à la base mooy da ngay dagan baatu askan wi loolu looloo génnee Khalifa Sall Hadj Malick tubaab mu ne oui je suis d'accord oui. ñooñu dem. Hmm? bugguma ko leen xarab. bugguma ko leen xas. am na lu tax ñu dem. non dëgguma la non xamaguma ko mais. dama ah, xam nga ko waaye. waaw dama ne ma ne dama ci am ay xarit. dama koy waxaat fii. am ci bokk ci pas-pas. am ci bokk ci deret. am ñoo xam ne nii àgg naa ak ñoom ci loo xam ne. je suis nit doo ko yéene torox taan ku may jabar nit yéene nga ko jàmm. waaw d'accord mais nit doom yéene nga ko jàmm. waaye dama ne ñoom ñooñu ñoo xam la tax ñu ne dañuy naq seen bopp dañuy bëgg am nañ ci droit comme ni ko waa PS. pendant qu'un grand parti qui a dirigé le pays 40 ans. topp ci waa APR gi waaye ñoom ñoo ñëpp. ndem ëllëg du añ du reer waaye lu mot a yekkal la maa ngi leen di bàyyiloo xel ne maa ngi leen di bàyyiloo xel ne la perspective républicaine la perspective de stabilité la enjeu de sécuritaire l' enjeu de stabilité bi am war naa tax ñu xam ne li nguur li ko yà ñàkkaloo woon PS. yow ban ban insécurité nga bëgg wax indirectement. maanaam l'enjeu de sécurité. cela veut dire quoi. ma ma toj ko ma ma ma ko. mooy lan 2000 la ah, auparavant balaa loolu ma wax la ne la 2000. Mhm. Moustapha Niass. oui 16 pour cent la amoon. wala yaa dégg. oui Abdou Diouf 40 pour cent. Mhm. Djibo Ka 7 pour cent. Mhm. soo ko dajalee ñoom ñëpp amoon nañ 63 64 pour cent. oui bu ñu àndoon nekk benn. oui te bañ ko ñàkkee ba nëgë nii li wolof di buubu gë buubu golo rëcc la bant ba damm ceen ceen ceen ceen nga ko ma ne loola ñoom ñëpp kenn ku ne yaa ngi daw ci mieux être ma yaa ngi daw ci reprise en main du destin du Sénégal sur la base d'une option projet te mënoo ko am réew yeneen ñuy wër yëpp noonu France ak Allemagne ak fu ne parti bu ñàkk nguur ay at ay génération desaar pour am ko kon képp ku bokk APR mbaa nga bokk Benno Bokk Yaakaar diggoon Sénégalais yi Yaakaar soobu ci yor ko ba heure bi nii tey fook ne nag wi dee na kaay nañ ko tong-tong jot na da ngaa juum. mais parce que moo tax maa ngi ñaan parce que l'unanimité sursaut de patriotisme sursaut de l' intérêt supérieur. pour ñu ñëw da nga yaakaar yow li wax ni xam supérieur ba da yaakaar yow gars yi ñu yi xamuñu ko gars yi ñoom Khalifa Sall ak yooyu da xamuñu loolu. xam nañ ko xam nga problème bi mooy même Amadou Ba amul unanimité parce que déjà kenn ci APR barki démb démb sax laay wax. alxames jii la wax ne ànduma ak am Ba du nag yéen ko te kooku yoru parti de kooku yoru parti à parti la bokk. waaw ma ne yéen ngeen ndokk parti. boo xam ne wax cay tontu balaa may ñëwaat ci li nga ma joon léegi ci ci dama lay damay wax ne. xun xunóor xamul fitam. il a une bonne occasion de sa taire. te jàpp naa ne la conséquence aurait voulu que su fekkente ni mën naa def ni Aly Ngouille Ndiaye defoon. na ànduma ci dem naa sama yoon. ba comme Mame booy Diaw wala boog ñu def xamul buur saay na ñu ne la dama neex ne la amul deux poids deux mesures dama neex rek amul deux poids deux mesures xaw ma kooku lu ko illustré lu ko illustré mais jàpp naa ne ñàkk na ku ko xelal ñàkk na ko ko yedd ñàkk na it ko ko conseillé waaye comme am na droit def lu ko neex damay je prends acte de ce qu'il dit waaye di ko xamal nag ne ko euh, ku dugal sa loxo ci suqi salte da ci ciix tibb sànni ku nit foo bëgg mu tilim yow tilim nga pare yow tilim nga ba pare alors pour revenir naa ci ci ci Benno Bokk Yaakaar ak ci Amadou Ba mi ñu tànn dama daan ne la amul ci réew mi ku fi am sol koo xam ne boo tëddee balaa ngaa ñëw du nga xalaat ëllëg réew tànn leen Amadou Ba de yéen waa PS ma ne da ngeen cee topp nga yéen waa parti socialiste tànn leen Amadou Ba dégg ma bu baax. dama yéen waa PS. waaw malgré seen congrès seen ndaje bi ngeen def. yéen tànnu leen Amadou Ba. waaw ku la ko da topp ci tànn gi waaye tànnu leen ko. ah non non a été choisi ba ba président Macky Sall wootee. waaw seen lan bi ngeen eh, kii nangam. xam nga xam nga dama lay wax da ngeen cee topp nag. dama lay lu sotti lu ne. Mhm. nit ñi dañuy gis ne sotti na waaye duñu xam la ko waajal. li ma la mën a xamal mooy man xam naa ne ci dundam Ousmane Tanor Dieng doon na fekke loolu xam naa ko. ah bon ah oui oui. Ah ay doomam a ngi dund ak i soxnaam ak i mbokkam. Ousmane Tanor doon na jéem a fexe nu Amadou Ba jëlee réew. mu nu mu amee taxawaay bi mu am tey ci réew mi ak yaakaar bi ñu am ci réew mi dem na ba bés mu di ko ko wax naan ko mais sa jëmm ji ak sa sa sa ni ngay doxalee vraiment lu jekkoon la ci ku ku war a nekk président Sénégal. dama lay rek waaw waaw mais ko yéene te dama xam ne it ne Abdou Diouf ak ñu ñu ngànk parti bi wu umpantewuñ Abdou Diouf ak makk Macky Sall umpantewul te dañuy waxtaan maa la wax loolu. donc donc dama la ne la dama la ne la ñun dañ ko tànn moo ñu doy. non da ngeen topp ci tànn gi. ci tànn ci doy googu mu ñu doy nag. Hmm. moo tax ma ne ñi biir ñi bokkoon biir APR ku ci am waaw ju waafal dee ak ku sikki mu di xaar mu fakkasalu nga jox pour for dama leen xamal ne la diggante solo ak sumeeku faw yére mu neen am ci wàll moo taxit it nañ bàyyi xel ne bu ñuy wax. nañ xam ne waxatuñ pour seen parti rek comme man mii waxatuma pour PS rek damay wax pour candidat boo xam ne ni ko PS tànnee noonu la ko AFP tànnee noonu la ko LD tànnee noonu la ko PIT tànnee noonu la ko LDRSL tànnee noonu la ko UCS UCS tànnee noonu la ko APR yaakaar tànnee. à part la tànnin boo xam ne nii. d'accord d'accord d'accord asgor su waxee. d'accord mais loolu sama baatam gis nga gis gis nga. léegi ku nekk ci biir APR tey. oui mbaa nga nekk ci biir PS. ànd ak sa mbooloo ak say base ñëw taxaw ne Amadou Ba la. mbaa nga dem sa congrès parti sa conseil de son parti ne Amadou Ba la. wëlbati ko def le contraire suuf reyuloo ko sama bu ngay rey. d' accord d' accord moom yàlla danañ na ko bëre. d' accord loolu loolu. soit d' accord d' accord Wilane mais ci d' accord d' accord c' est bon. léegi léegi jox ko benn morom. oui jox ko benn nawleem. ñëpp ne ko yaa ñu doy yaa ñu doy nag moo gën maa leen ñu doy. waaw mais am na ñu doyul quand même ñu bare bari. léegi léegi am nañ ci droit. waaw d' accord mais dama la parti socialiste ci boppam fii nga xam ne moom mooy mooy aale kala ji. lu mat 555 communes xaw ma la nekk ci biir Sénégal kat nangam nangam 400 et quelques euh, maires yéen à part seen yow mi yow mi Aminata Mbengue Ndiaye léegi yéen yéen fan ngeen toj ci ci ci seen coalition bi mooy benn responsabilité dans quatorze régions yoru leen ko li ma xam ne base li ma xam mooy base ak mbooloo bu dee mooy maye bëri na socialiste yu mën am yàlla nag mooy dogal ah, yéen gis nga Sénégal Macky Sall leen ba ngeen seet tangu seen affaire yow wax ne gëm nañu yàlla mhm. waaye bëriwul ñu doyloo yàlla wóolu yàlla cela veut dire quoi en politique maanaam maanaam gis nga soo gëmee yàlla. da lu xew lu ne. te loolu laay xelal Amadou Ba loolu loolu laay xelal ñi bokk ci benn bokkee garab lu xew lu ne ak loo dëgg ma lu ne la nga mën ca la nga war a def pour am ko def ko soo defee nag ba pare da ngay def tawakkal wala laay ak bàyyi sa bopp ñi yàllaay jaarale dogalam su lu yàlla dogal nga nangu ko nga nangu ko te continuer nag wagaal saat say mbubu. waaye ba léegi ba léegi tontoo ma parti socialiste ba mu diggee ci euh, Benno Bokk Yaakaar ba léegi au niveau national yan responsabilité ngeen yore ci commune yi ci maire yi ak ci département yi zéro encore une ñuy jàppalee Macky Sall condition la te doon tey sans condition lañ koy jàppale sax dañ ko Moustapha Diop gañ ko mii jàppaluñ ko sur la base de la dañu wax ak moom ne ko dañoo bëgg nga ànd ak yow ngir nga bennale Sénégal ngir nga suuxat jàmm ngir nga saytu nu ñuy yokkale yàkkale mi ngale jamono jàmm ji ci loxo jàmm ji ci loxo Sénégal yi ñëpp ànd soobu ci yoonu yokkute naataange am ci réew mi te nga yemale doomu Sénégal yi d'accord léegi baral jéego yi nga xam ne li fi mag sa def ci lu baax da nga koy sàmm aar ko ñoŋal ko waaye nag seet jamono ju ne est-ce xam nga ne est-ce que xam nga ne parti socialiste bu amee tey ji ay di ay ñu dem seen yoon fe feddi géew lenn rek ko ko waral mooy bootu bi ngeen bootu ci ci benn bokk yaakaar moo dal Khalifa Sall si mois de mars ba la ngeen génnoon seen congrès ba seen xeex ba moo dal moo moo dal Barthélemy Diaz moo dal waa IRAS lan moo fa tax nanguwuloo ne yéen mais booy wax ne day mel ne parti amul problème ba Sénégal sosoo ba nëgg ni képp ku mos a beddeeku ci PS dem mhm. PS gën na la demin gën la mujj gu rafet cela veut ñëpp ah ñëpp PS gan ñëpp ba 2000 ba nëgg ni avant 2000 sax laay wax képp ku bedde ko woon. mais ba mais Barthélemy Dias génn PS dem nekk na maire. suñu kilifa Moustapha Niasse ak ñëpp amul kenn koo xam ne tey gën nga demee parti socialiste parti socialiste xalu ndéef la. ah déedéet parti socialiste li ñuy wax ñaxu baara la. man daal man man dégg nga xanaa nga jës ko lakk ko. waaye jébbi rek. waaye léegi ma laaj la benn affaire te ñun di ngi taxaw ci pour jéeg jéeg dundalaat ko li li ñu bëgg tey mooy bu gannaaw soxla du am rakk na ñëpp sóobu ci. dëggal suñu yéene ci Amadou Ba. ban année ngeen ko rafetal doxalin bi <coughs> bu ñu paree ci élection présidentielle. soobu ci renouvellement parti bi soobu ci mingale ko ak jamono ak population Sénégal ndaw ñi jàng nañu mën am nañ ci biir PS xale yu mën a muñ xereñ lool am ami bokk ak ay kilifa yu bokkoon ci parti bi ñi fexe ñooñu ñu teg leen ci gawar gi. ndax xam nga yow li xam nga yow li xam nga yow li ngay wax nii parti socialiste la engagé. mais parti socialiste bi nit ñi xamoon démb ak bërki démb ak bii fi am nii nga xam dafa mel ne benn parti socialiste renouveau boo xam bi dafa topp rek ci gannaaw benn bokk yaakaar. parce que la vie pas une histoire linéaire. ah day am ay hauts et des bas. loolu mooy àdduna. d'accord loolu mooy àddina. waaw léegi. tey day neex yi ma fàttali ba léegi ñu ngi ak. Euh, euh, dégg naa dem Ndour fi mu naan bu démb neexee bu neexoon na. d'accord jàmbaar booy des sewaar wa. d'accord gannaaw ba leen Macky Sall pressé bi ngeen def nekk daanaka expression bi gën a tuuti ci opposition parce que waxoon na ko def na ko <laughs> léegi nag euh, réew mi dey dox wax nga ko dëgg la dañuy avancer. ñu dikk tuuti génnaat dëggaat ci parti socialiste parce que homme politique nga nit ñi xam nañ la Abdoulaye Wilane kenn du la présenté Sénégalais xam réew mi Ah, justice fierté nag loolu nag. absolument naturellement absolument léegi euh, <laughs> waaw yow ci sa bopp yow ci sa bopp xam nga ne Abdou Diouf mi nga fi tudd c'est un homme de droit ñëpp xam nañ ko ku gëm ku gëm yoon la Senghor waxaale wuñ ko Ousmane Tanor Dieng waxaale wuñ ko un pays buy dox dafay dem ci justice mooy doxal réew mi président de la république prés mais dafa nag rek Macky Sall ci boppam nee na woon moom bu jëlee yëf yi lu justice dogal da cay ànd tey jii ñaari dogal am na yu wuute Casamance ñu duggeen interroger waat Sonko fii bërki bu ñu demati ñu ne leen ko ñu lànk ban lecture boo xam ne yow yow seenu mais rek en tant qu'homme politique ban jàngat nga ci am fu amul jàmm jeex na fa oui dëgg amul jàmm jeex na fa li ma la mën a xamal mooy maa ngi sant yàlla de ndax bonne nouvelle la ci démocratie ci état de droit ma baamu ko bon nouvelle la nouvelle bu baax la xibaar bu neex la bu rafet bu dal xel ci démocratie ci état de droit ku daan dingat ak a ŋàññe ak a xarab justice xëy bég ci dogaluñu justice. Ah non man nañ ci ba a bég tamit. Ah, parce que dogal bi demul. dogal bi demul lan moo ko bloqué. kon kay sala on n'a pas de justice. bi ci des mooy euh, njaw des naw xàmbin. Mhm. maanaam lu ñuy àtte di ko saytu fi ma xam ne nekkee benn fii yegguñ ca cappaandaw la. ba ba ba ba basaa basaa am mbala boobu bu doonu tani la ñu ne wasaana ku foxtu mbaa nga sor xolle boo demul ndàkk dangaa caalit daa ko rëccu li mu bëgg a wax mooy le temps de la justice n'est pas le temps du citoyen n'est pas le temps du politique. non juste que pare na ci wax nañ li ñu wax ba pare. c'est l'administration qui pose problème clamé nga. te kenn mënta àttal sa bopp kii àtte fa ma xam ne nekk benn jox la dëgg. ki mu jox dëgg ni ah man ay la yéwén nii ma gisee dalul sama xel mm. joxut ma damay def appel. waaw ñu def appel ñu ñu dóoraat leen mu ñël ndax inna laaha maa saabiriin ñu dóoraat leen nga xaar nga xaar te dama lay wax ne la fii Sénégal toll Hadj Malick maa ngi wax lu rëy te du suma aada sama jikko ma di ko def. Mm-hmm. fi Sénégal toll bëri na lu ñuy ruumandaat ak ji ko jéem a lijjanti ci wàllu droit mbiri raison d'état da cee nekk. ah bon ci suuf ah maa la wax lii. ah bon ma waxantuwuma maa la wax lii. raison d'état mais problème sécurité yi ngeen di éliminer. cela n'a a à voir cela n'a rien à voir ak inter réintégrer. ñaari yoon laaj dama ci ne ma pourquoi vous insistez mhm. sur le péril sécuritaire et l'enjeu sécuritaire. oui ma wax la ne bu weesoo pétrole bi bu weesoo gaz bi xoolal li xew ci Mali xool li xew Guinée-Bissau euh, euh, euh, Burkina Niger xool li xew Guinée-Bissau ak lii réew ma ndaxte Gambie. la ca dolle ko nit boo nekkeem ci réew waroo di dog nawu askan wi waaye war nga di leen dànkaafu ndax ëllëg du añ du reer te magum waxoon naa ko moo gën magum xamoon naa ko dama xam naa fi ngay waxee mais dama ne wax ah, fan yi ci gannaaw oui benn journal bitim réew mhm. bu xibaar ne am na nguur ak réew moo xam ne suruxal na ci gafakaat ak ci jibaay benn waay nangam ci xaalis ce qui ne ce qui n'est pas ce qui n'est pas une information parce que bu dee loolu parce que dañ leen ko def. parce que Sadio avait dana recevoir ay ah, attention loolu de information de. benn ñaar ñi fi nekk nii ci pouvoir bi. Oh, mais mais may ma ma wax la. dama ne la fii ñu toll nii ci réew mi ñu nekk état on fii ñu toll nii am na fi kilifa goo xam ne tudduma kenn nag goo xam ne kii xaalis ba mu jëlee woon Abdoulaye Wade dana ko foo ko jëlee président ban ko ba mu yaakaar ne fa la ko jël dundatul mi ngi ci biir ah, nekkatul ci kaw suuf. loolu naa yàgg naa am ci parti politique yi. Ah, déedéet déedéet bokkul bokkul. ak ah, quelle la différence booba président de la République du Sénégal moo dem seet ji Libye Mouhamed Khadaf yàlla na ko yërëm yaa ngi dégg ànd ak délégation boroom xam-xam ne fa ma waa a génne xaalis jox ko. Mhm. mu mu jël ko jox ko kenn ci borom xam-xam ya ne ne leen yéen yaa ko moom def leen lu leen neexee loolu ndax président la Abdou Abdoulaye Wade jël toon xaalis ba. mais mais mais mais président Gabon bi nag. waa Gabon lu fa xewoon lu xewoon Gabon. non déglu rek ma ne. mais lu xewoon Gabon. xawma Gabon <laughs> waaye daal li moom contre contre Abdoulaye Wade. Mhm. danaay wax naan fara Wade njaag daara Wade njaag yuquma ci sangum xeer. yàllaa ñu ko joxoon tey bi mu jógee ko ci réew mi tiga tojul géej gi dafa dina tóoruwul te fi mu toll nii def jàpp na nam tàmbalee woon ak ni mu doxalee tey tey la gën a sage kon nag dama koy nuyu di ko ñaanal yàlla mu yàgg bi te wér non dama la bëgg wax ne la loolu du information jox na nit ñi xaalis yooyu. pour plaire à Adja Woré pour plaire à ñoom mais dama bëgg dellu si ci li ma doon wax. jamono yi ñu toll nga xam ne réseaux sociaux yi ak plateforme yi nga xam ne dañ ciy def transfert argent am na yoo xam ne nii mën naa nekk ancien président wu réew moo xam ne nii mosul bëgg Sénégal mbaa mosul bëgg président bi fi nekk di yónnee xaalis gis nga portable gis nga fi mu nii ku sa portable bul foog mën naa am sax mën naa am kat gëstukat ak càmbarkat yi eh, ñoo koy jël pour xool yow par rapport ak li nga yaakaar ak li ñu yaakaar ne war dafa doon ñu xool yaay kan kon dama jàpp ne eh, li ci nekk lépp mënee su ko wax yaa ngi dégg ndax am na loo boo ko waxee mën ngaa yàq nit te nit mën naa juum tey bala mu dugg ci loo xam ne too ko doone la loo ko ju mën a nërmalum réew waaye jamono mën naa dox ba mujj moom mu yeewu ne xameewu ma ko nii kon daal li ma bëgg nit ñi xam mooy Euh, na nit ñi daal dëgg la dëgg la am na ñoo xam ne ni am nañu projet bu ñu gëm wala lu ñu yaakaaroon seen par tas nañu ko waaye le monde les cimetières sont remplis d'hommes et de femmes de grande dimension qu'on croyait immortels Oui, mais, nature humaine loolu c'est normal àddina ah, noonu lay doxee mais dama mais dama laa bëgg wax ne la président Abdou Diouf bi ngay wax nii di ko di ko bàkkoo amul lu ko Ablaye Wade deful amul lu ko Abdou Diouf amul lu ko Ablaye Wade waxul créé benn journal bu tudd soppi xaw ma lan. lu wax nañ lu ne Abdou Diouf lu ne wax nañ ko nag. muy Senghor. ak ñam jamono. waaw waaw ñoom ñun ñu fi des. oui ku ñu tëkkaleel d' accord nañ ñu tëkkale ñoom moom waaye yemuñu ak ñoom. waaw d' mais justement loolu laa lay wax moo tax man la yéen li ngeen. restitué bi ñu am. oui ma baal ma ma loolu Abdou laa wax Ablaye Wade ak i nitam bi nekkee ci opposition bi amul lu ñu yàqul parti social amul kii non mais ah bàyyi lan ya mais yow yow même nañ def ko nenn nii di ko bundu xatal def uñu mbóot nañ dugg ci biiru weerante te damay wax ne man bañu mu ñu xuloo bañu mu ñu xeex waaye li may bañ mooy ñuy weerante ndax bu ñu weerante ku sàgganu ku ne ñëpp sàgganu nañ loolu moom yàllaa ko bindee doomu adama moo tax may wax naan yaa sa taar yaa sa taar yaa sa taar li ma bëgg nit ñi xam mooy fii Sénégal toll wallahi sama xaqu lay lay taalaa lay wax ëllëg Sénégal moo tax di wax dama ne réew mu mel ni Sénégal ci jamono ji ñu toll ak environnement bi ñu nekk mu ngi benn fasu naaru góor wu suur këll bari doole te dese mokk bul ko jox sa waay jox ko waayam boo ko joxee sa waay mu sànq ku sànq waale fii Sénégal toll dama ne man tiitalu ma kenn waaye dama ne am na ñoo xam ne xaayuñu sax bay ñor xaay yu ñu bay ñor. xaay yu cercle ci ban plan. léegi moo tax ngeen di moo tax ngeen di moo tax ngeen di taxé ñoom ñoom moo tax ngeen taxé ñoom Sonko d' entreprise de terroriste et tout ça c' terrible. loola moom loola moom loola moom ñëpp constitué réquisitoire yi wala accusation yi ñoom danañ ko illustrer par des faits et des preuves. Ah. irréfutables et en ce moment la justice xam man. non justice moom bu nekkutul amatul li ma xam justice moom day dogal ngeen ne du fi amee. li ma xam tey justice moom day dogal sans ñu appliquer ko ñu ne non. deux cent et quelque ñoo def candidat à la candidature. am na ci ñoo xam ne nii bu ñu toog ñoom ñëpp sax bu ñu toogee wéet kenn ku ne sa biir néeg toog xool fii réew mu toll. dégg na ah ay la yowin vraiment naa am rek la ci douze bi sénégalais. waaye ay la yowin wax dëgg yàlla mais waa ji attention bonul de.

déglu ma da nga dama ne ci bilan ci liggéey li nga xam ne nii kenn mënu ko miim. oui wax nga ko. waaw mais nag mais il y un mais. waaw may ma mais bi nga yow noonu la wax na am na ci loo xam ne nii c'est immatériel immatériel. et qui marquera définitivement l'histoire du Sénégal. Macky saal def na ko muy lan Macky l'histoire retiendra que Macky Sall est l'homme des deux mandats après lui plus jamais cette question ne se posera te loolu. nous devons en être fiers. nous devons ah, attention attention ah, wax am na baat bu mu ci ba ma bokkaat. dafa ne te pourtant mën naa ko mënoon naa ko def. waaw moo tax. cela veut dire que kon cela veut dire que kon nag ko doon bàyyi xel. oui moom mënoon gëm yaakaar ne mënoon na ko ñu bëri jàppoon ko man mii ci laa bokkoon. yaa ngi dégg mu xëy du ko dugg dans l'histoire pour nekk l'homme des deux mandats parce que bi muy ñëw ce problème s'était posé. waaye non les deux mandats les deux mandats loolu loolu histoire du ko bind parce que Macky moo ko bindoon. avant mu koy wax il avait dit verrouillé naa ko c' terminé en 2016 c' est ce qu'il a dit. wax na ko 2016 la ko waxoon amoon a ko defee réglé na ko mais li gën a am solo. yéen kañ ngeen laaj la benn laaj bu la bu xaw bu xaw a. waaw ah, ah, ah, y waaw demal demal demal demal. da ngay waaw parce que yow da ngay dama lay jox kàddu gi nga wër ba wër. xam est ce que bu élection yi ñu jëm février 2024 2024 bii ñu jëm c' vrai que élection yu cruciale lay doon

da ngay taxaw déglu nit ñi nga xam ne ñoo yor. kenn ku ne na muy waxee nga di ko contre wala nga di ko nga di ko nga di ko nga di ko proposer alternative. oui Amadou Ba bi fi nekk. gannaaw daa bokk ak famille politique Macky Sall mënta ñàkk dalal xelu Macky Sall mënta ñàkk a tiitaroo comme ñun ñëpp ñu bokk benn bokk yaakaar pour créer bilan Macky Sall jikkoom ak melokaanam ak jaar-jaaram ak ak jëfam yoo xam ne. incontestablement ah, loolu wax ah, ah, loolu waxuñu ko waaw d'accord. maa posé question bu. <coughs> waaw d'accord waa demal demal waa demal demal. sa këyit gi ngay xool nii pour les questions yi may posé bëgg ko posé wax dëgg alors léegi bu des nag léegi nga ne après élection yi ñun dañ cee soobu ak option programmatique style de gouvernance yaa ngi dégg wóolu nit koo xam ne jikkoom melokaanam ne naa la gisuma ci kilifa diini yi ku ko xarab. waaye Amadou Amadou Amadou Amadou Ba kay wax na gisuma ko ci homme d'affaires yi gisuma ko ci syndicalistes yi gisuma ko ci benn corps social. jikkoom également yaram ak tëggeem ba nga yaakaar daa tooy wala daa nooy di la fàttali jikkooy Abdou Diouf di nga xam ne ni Senghor doon wax naan il a des mains de fer dans des gants de velours Amadou Ba dal na xel il nous rassemble et nous rassure. pourtant man j'étais pas même pas posé la question de Amadou Ba. alors alors alors léegi ngay répondre la Amadou Ba. moomu ñun moom bu laaj ak parti socialiste. léegi ñun bëgg ñun ak waa benn bokk yaakaar et au delà ñun ñi nga xam ne nii bëri nañu bokkuñ ci benn parti wala bokkuñ sax ci parti bëgg Amadou Ba doyloo ko wóolu ko buñ ko watalee dès le premier tour ba mu nekk cinquième président du Sénégal kenn ku ne nag jublu ci sa topp toog sa parti. lu tax defu leen ko bi Macky Sall bàyyee. non mais dafay xajul xajul. ah waay bañ a xaj dafay xajul ñun dañu bi nga xamee ne Macky Sall toog na toogaat président Ousmane Tanor Dieng génn àdduna Covid ñëw aminte jël parti bi xaw feebar. coow leen na ko loolu la loolu nag yàllaa ko dogal te do jullit day nangu dogal. waaye nag góorgóorlu sabablu comme ni ko sëriñ Babacar Si radiyallahu kon léegi kon léegi kon léegi sabablu leen te bañ a sukkandiku yëngu d' accord kon léegi yéen boo Amadou Ba ba gagné da ngeen ci langaat du ngeen dem du ngeen voilà ku leyal mënut a ñàkk ah du kon yéen da ngeen topp rek la wa moo tax sànq duñu naa la ko moo kon kon kay PS léegi dootul parti duñu naa la ko dama ne mhm. Tanor daan na wax naan soxla du am rak benn soxla nañu am fal mag Abdoulaye mag Amadou Ba premier tour et après suñu bëree ci loolu nag ñun ñu dellu suñu gàmbo suñu suñu suñu nguunu wala suñu gitt toppaat ki gannaaw Amadou Ba defar suñu parti mais c'est terrible seet taxawaay li <coughs> ñuy tànn c'est terrible gis nga tey xoolal dans la vie nulle génération n'a le droit au aux aux générations futures à ses choix tey ñun ñii jiite parti bi ak aminte mi fi nekk ak ñooñu li ñuy dogal nii ëllëg bu ñu demee renouveler ba yàlla def ñu am beneen responsable maanaam yeneen responsable ñooña ñoo yor seen cëggal gu ñooy doxal nañu xalaatee. waaw d'accord waaye waaye léegi loolu benn hypothèse la loolu benn hypothèse am na tey ci parti bi. ak ci biir Benno. Mhm. ñoo xam ne ñu ngi waxtaan ci naan ah waa léegi kii gannaaw dañoo bëgg a dem 2035 mbaa xam ngeen ne suñ ko falee faaw nag ñu xoolaat Benno ndax day nekk Benno unité organique wala boog nañ xool nan la ñuy fexe ñan ñooy ànd ak Amadou Ba pour bu fekkee dafa bëgg ñaari mandat ci kanam. loolu nag c'est leur droit. waaw d'accord la prospective. absolument léegi ba léegi waa léegi wax nga loolu lépp ci benn hypothèse bi waaw bu ñu leen gagné nu PS def bu ñu leen gagné nag. mais attends. ah mais ah, boo waxee lii waxal lee ku wax lii wax lee. la laaj nga da nga ne ku wax lii wax lee. oui ñun 2000 la ñoo gagné dafa tax ñu dee. ah mais da nga 2007 la ñoo gagné. oui bi sama bi sama noonu ñëwee. du dëkk oui mais ñu ngi dund. mais mais 2007 2007 newul woon ci coalition de. ay ay nit waaw ah, c'était pas une coalition en 2007. lu ma la non tax na amoon na coalition benn. non non mais loolu kii wul woon doo bokk la. benn dama ne rek ma ne. un parti ak ci benn ci nit mën naa ci jurub dundam mbala ci biir jurub bi muy am kattan ak mën-mën ak fexe bëgg dara fexe ko mu sotti wala mu ñàkk sotti. waaye un parti c'est comme une nation. c'est comme mais pourquoi yow doo hypothèse bu ñu leen gagné mais bu ñu leen gagné waxal bu ñu leen gagné nooy def bu leen gagné nu ngeen di def ma ne la bu ñu gagné waaw lu ngeen def yéen waa PS mais sur la base de la kuréel kilifteefu parti wutiwaat leneen ëllëg wuti ko la ku dul may sa bopp da ngay fekke rek. sama bopp daf koy jéem ce que vous pourrez faire auparavant. tous les cas de figure ñun amul lenn loo xam ne nii gis nga ñaar moo am opportunité ak adaptation loolu lu ñu ngi moom xam nañ ko. waaye daal ñun jàpp nañ ne tey fi Sénégal toll. Mhm. li ñu dégg muy ruumu naat am na ñu mënoon a mere waa APR. Mhm. am ñu mën a mere waa PS. Mhm. kenn ku ne ci parti bu ne am na lu mu sikkee ñim àndal ndax ànd boo gis am na jafe-jafe. pourtant yow li nga wax nii xaw xanaa kon parti socialiste mooy du la noonu peut-être mais yow li nga wax ni en tant que parti allié. ci benn bokk yaakaar. parti présidentiel bi nga xam ne ñooy jiite réew mi gisawuñ ko nii parce que ñëpp d'accord ci Amadou Ba. looloo tax nag gannaaw ñun ñoom ñoo bokk. waaw te mënuñoo ànd te ñun ñëpp dañu am référence muy diine ñun ñëpp. oui ak diinu nasiya nasiya mooy laante biir maslaa. oui oui kon nag ñun am nañ droit ci wéet ak ñoom ak comme ëttu waxtaan yu mel nii ñu junjante ndax xel moom. c'est impossible. ñu ngi jujjante non non c'est impossible non ça ne ça n'aboutira pas parce ah, au niveau de la paire dem leen leen jëli Aliou Ngouille bu dee loolu la dem leen jëli Khalifa Sall ma ne keroog alxames ci congrès ci conseil national bi nga xam ne waa APR dañ ko érigé congrès oh. am nañ ko bokk ci réseau libéral africain bokk ci international libéral oui lam leen wax te président Macky Sall baamtu ko mooy lan ba mu ko waxee daf leen wax ne leen ma ne mhm. yéen ñëpp Mhm. na ngeen xam ne yéen waa APR su ngeen nar a ñàkk nguur gi yéen a ko nar a xañ seen bopp nekk leen benn nangu leen dogalu yàlla topp leen ci mbër mi leen yàlla tànnal seen ji tànn ko nit du weddi boppam waaw mais mais malgré tout defuñu ko c'est ça waaw waaye wax boobu mu wax ñu ngi seen position ba léegi wax boobu mu mhm. bu dee wax jooje jiw la mhm. jiw jiw jiw loola dañ koo suul ci tool bu am tos muy xel ak intelligence waaw da Macky Sall mu jëlee kat da leen wax ne moom mii li mu wax du xam nga ji rek dafa boole xam nga ji ak mos a suub. mais justement ñun waa PS yi Aminata waxaat na leen ko fa. waaw Aminata Mbengue Ndiaye. dégg naa dégg naa mu wax ko. président Moustapha Niass bi nga xam ne nii xam na lu mel noonu li mu jur en deux mille un en deux mille. boobu nag nii féewaloo bi amoon ci benn boo ko yaakaar lu mu jur ba muy wax it duñu jënd kon nag. ku tëb dal ci talu ci xalu sabar safara dese nga ba léegi tëbin mais mais justement yow nag wax nga lépp yow nag problème bi mooy malgré li li li li Aminata Mbengue Ndiaye wax ne Moustapha ne léegi nag pour ñu gañ Moustapha Niass nee na pour ñu gañe il faut ngeen unir xam nga loolu d'accord nañ ci mais malgré tout. ci biir au sein de l'APR il ba léegi tey la gaa yi gën wàllu gën aay moo tax man la kon fu ngeen jëm. Maodo yaa gars yi bërki rek Mbambay Ndiaye nee na demul àndu ci moom ay yow. Ma Maodo yaa dëkk Njàmbur digaloo Kajoor. bu baax xam xam ko bu baax nag. dox diggante déglu dox diggante Kajoor ak Jolof. ah bu baax. ba ko ko ci waxee doomam ya kenn ku ne na indi ñaari polu bant. Mhm. mu ñu teg benn bi téye benn bi. Mhm. mu ne bi ngeen téye kenn ku ne na biij ba mu bi mën a toll damm. bañ tegoon mu ne dajale leen ko ñu dajale ko takk ko mu ne biij leen ku biij biij mënul mu ne leen nii rek la waaw d'accord mbooloo mooy doole waaw d'accord mais malgré dama ne la ba léegi yow li nga wax ni mooy mooy li c'est l'idéal si mooy gën moo gën mais dama ne la loolu waaw APR xam nañ ko te defuñu ko moo tax Aly Ngouille Ndiaye dem Diawo dem Mamay Ndiaye ne leen ànduma ci ana ana ana unité ba ana unité ba Ali naw naa ko sama goro la d'accord sama bokkum taalibe la waaw sama mag la bun jon dem bun jon sama mag la tudd naa doom sama bokkum taalibe la keneen dem ñoom ñoo ñëpp li ma leen di wax mooy waa kon léegi li ngeen wax lu muy jariñ li ma leen di wax mooy kon leen seen lu muy jariñ lu muy jariñ te loolu lay dund wàññi ko du damm ndiggal jaan yéen sax waa PS sax yéen les échappés solitaires et révolus Sénégal fi dañ lay jay ba nga jayeeku ñi jañex la nga jaaxaan ñi ñëw jàll la jéggi la yaa ngi dégg lu kenn mën mbooloo ko dax nañu toogaat waxtaan te réew mi am nañuy xarit c'est trop tard c'est trop tard c'est trop tard c'est trop tard kan ma fi ñëw di waxtaan ak yéen gis nga xoolal wax ma nan wax ma rek ban formation politique moo ñëwaat di waxtaan ak yéen yéen ku waxtaan ak yéen non non ku ñëw boo ñëwee looy wax président Macky Sall bàyyi na yéen yéen fi nekk di la nga maatu waxtaan ñaari façon la am na monologue parallèle ngay dégg muy dégg yaa ngi dégg wala am ku ñëw jotaay ak yow wax la nga tëdd wéet yow kot xalaat def la Serigne Cheikh Ahmad Tidiane Sy Al Maktoum radiyallahu ta'ala daan wax am sa rukk mën a kan waaw d'accord léegi nag fi Sénégal toll laa wax encore une fois plus maa ngi wax ci ñi bokkoon ci Yewwi Askan Wi yëpp te tasaaroo tasar kay tasar waaw yaa ba wax ak ñëpp laa wax dama ne loola jëmut kër Sénégal mënuloo fi am cinquante quarante soixante dix cent deux cent candidats à la présidence de la on est d'accord yaa ngi dégg kon nag faaw ñu diisoo il y aura un présidentiel bi comme ci opposition bi diisoo sottante xalaat nawante nawante kanakan li nga wax ni kanakan kanakan a koy def en tout cas ñun suñu part suñu suñu biir jàpp naa moom it maa ngi ñaan yàlla bu dee loolu bu dee loolu bu dee loolu tax jëli woon Khalifa Sall da ngeen da ngeen di jàllale ko rek dem leen jëli ko xam nga yéen da ngeen wax loo xam lii c'est contradictoire moo tax tey Khalifa Sall xat ci biir Yewwi Askan Wi oui du dëkk mhm. te xam naa ne jàmm rek la si ak Amadou Ba jàmm rek la waaw mais d'accord mais. waaw moom la séq ak Amadou Ba d'accord naa ci loolu mais dama ne la loolu lépp bala ngaa dem ci këru jàmbur naan kaay leen lu booloo yéen waa PS booloowu leen sax faf ñun dañ koo jéem. mais sottiwul te tayiwuñ ci. Ah, tay loolu moom danaa tey ak ëllëg man sama itte la sama. soxla waa waa Iras waa Iras waa Iras. ñëpp. waaye yow taxaw fii nii balde na leen yéen du la mais nee na bokkul. waaw mais am na droit ak mbokkam ma ne non waay waay ñooñu dama lay benn affaire <laughs> encore wax plus. xun euh, xun noonu xamul. Ah, te dama wax ne. muy Mame a des cadres qui sont derrière muy Mame Mbaye muy mel ni ki Ba Balde ak ñeneen ñu dut ñoom tey xalaat la ñuy xalaat xam nga lu ma leen di tontu. Mm-hmm. xol xasan na te wokkee si ko ndax baaram jotu ko te it ñun Saalum xam nga luñ xam. Mm-hmm. bajji fañ koy teggi boo ko falangee mbaa nga jëm koo keef sax mu gëtan la waa d'accord naa ci loolu rek waaw léegi léegi walaam léegi waxtu yi daf ñuy bëgg dap léegi léegi looy tëjee en deux mots looy tëj mooy kilifa gu ñu fii roy ci mhm. wàllu diina ci wàllu aada ci wàllu suufiyanke wala ci wàllu politique li ñu koy royee mooy am ak dëggu am pas-pas te te ubbeeku di déglu Amadou Ba wax ji ma ko dégg mu wax ci congrès parti yëpp dolli ci jikko ji ma ko xamee woon ak jaar-jaar bi mu am ak taxawaay bi am ci réew mi tax na sama xel dal na ci moom ma bëgg ñëpp jàppale ko ngir Sénégal ngir jàmbi Sénégal. ce qui est impossible ngir ce qui est impossible mu wax ne moom dana sukkandiku ci li fi Macky Sall bàyyi sàmm li gën a am solo waaye itam nee na dana jiima baral. réforme yi coppite yi ngir def lu gën lu dàq li Macky def. d' accord d' accord wax ci congrès APR. Euh, mais loolu bu ko lu muy wax jërëjëf. Euh, bu waxul loolu muy wax. daa day ah, wax <laughs> ah, alors kooku c' est clair léegi mënu ma jeexal aussi te waxuma jëm ci wàllu mbayum gerte ci gerte gi. ah campagne maa ngi sàkku ci campagne agricole bi. il y a des problèmes indil ñu ñëw ndax jàpp naa ne li ëpp solo mooy ba béykat bi am njëg gu ëpp gi nga xam ne moom la ñu wax ne mënta ñàkk. d' accord loolu moom benn la ci bi ci des mooy mm-hmm. travailleur u euh, collectivités territoriales yi ak ñii nga xam ni dañoo nekk ci ay syndicat signé accord gouvernement bi du ñu wax ne am nañ sept mille trois milliards de budget te accord ak engagement yi Sénégal jël état bi jël ko duñ ko fay université yi restaurant ya fa nekk ña ko yore signé ak CROUS yi na état bi génne bor bi mu leen yoral fay ko réew jàmm ak dal mooy tax ak njàng mi ak njàng parce que loolu sax bokk a ci waxtaan bi mais waxtaan bi daf ñoo xaw a dab parce que loolu lu ma très bien jërëjëf euh, ñu ngi lay sant bu baax a baax Abdoulaye Wilane moom <laughs> naturellement nii la mel ñëpp xam nañ ko loolu ci wàllu politique di la sant tamit amuloo jot mais wax dëgg yàlla bàyyi nga sa yëpp ñëw ngir yàlla ak groupe bi Euh, waa sut ñëpp ñu ngi la ci sant di la gërëm ndax bu ñu la woowee rek da ñëw loolu mooy wane sa ouverture te loolu vraiment baax na ci merci beaucoup mbokk kon beneen dimanche daañu di kat ci beneen gan am ngeen jërëjëf merci beaucoup